man nag objectif bi ma am ci école bi objectif boobu laa am ci Kaolack gi yépp ndax Kaolack waratuñu toog te incha allah loolu dama koy jël engagement ferme ëllëg bu ñu jëlee mairie bi mairie bi man ko bu ko mënul tamit ñun danañ wuti ay moyens yu ko def feneen ferme mooy Kaolack gi yépp tenue yi dana wàcc parents d'élèves yi et day nekk tenue yu baax yu moderne ndax xam nga lu tax day rafetal dëkk bi day rafetal dëkk bi suñ ne woon dëkk bi école mi ngi ubbi wala ñi ngi xëy di jàng nga gis foo forom ay xale sol ay tenue da ngay gis ne dëkk bi dëkk bu rafet la bu ku dem États-Unis ku ci dem ci da ko gis ñu am ay tenue yu baax ay dàll yu baax day rafet noppal parent yi ndax au ngay jënd ay yére benn yére boobu dana ko doy te cette fois ci suñ koy defaat qualité lay doon incha allah da ko gis ànd ak ay dàll ak yëpp. beneen bi mooy dana yar xale yi dana yar xale yi incha allah ndax ni muy yar xale yi benn xale ñi ma woo sol ci marché bi taxawal wala da nga gis ku la ne yow de jàngi woo ci ci jàng boo génnee say parent doo ñemee dem daw jàng kon loolu dafa am solo kon daal. li nga xam ne nii mooy mooy mooy li nga xam ne nii mooy lay ñaan mooy ñu gën a investir ci xale yi ndax xale yii fii la président de la république demi nekk fi le première ministre nekk fii le ministre nekk